mutul bopp almet ca kër ga ma la defal àjjana daa de ko may naa leen ku fi yeewoo ku mu doon su faatoo sutu borom yërëm ko dem yóbbu ko àjjana hmm. loolu bi muy rëdd kër gi loolu la wax si bàyyi yibra noo mbittu la ànd ak euh, sëñ Fallou Diop sëñ Ali Ali Sarr sëñ Moussa Diop euh, Moussa Diop xam naa cheikh bi daa ñëw muy sëñ Moussa Basirou Sène euh, bàyyi yibra nag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 wala wala ju wala ju nekk Amérique mbaa France mm-hmm. te du yàq ci ngoonalam dara wax na ni Cheikh Rafal may na ko dara ji toll ni mm-hmm. mën naa bàyyi coo bàyyi koo Cees dem bar barsàq lijjanti waayam mm-hmm. te du yàq ci ngoonalam dara sëñ Assane sëñ Moussa sëñ Moussa Thion sëñ lañ ko tuddi am déet sëñ moom mi bàyyi Talla sëñ Talla Fall Mortala Fall kere bi suñ taa fatoo xalutu ñeen fukki guddi yee fatuwaale sëñ Mortala loolu ku dul sëñ Mortala mosoo ko am suñ taa dugg xaloo fatuwaale ak nit sëñ Mortala Fall ko mas am ci àdduna bàyyi yëru coon sàmm maa doon jox suñ Mortala la ñuy jëfandikoo ginnaaw bi la ko taylee ci kaasu café ci kel moog sëñ Moussa Gueye waay ah hmm, sëñ Moussa Gueye waay ak kel la sëñ tuwaan mar café di ko leb borom pritang bi borom bitik bi mu lànk ni ko wóoluwuma la sëñ tuwaan wóolu ko naw ko yàlla wóolu sëñ ko tayle fi may yelwaan di fay ba mu matee quinze jours sëñ Mor ko tayle ma fi may yelwaan di fay bàyyi bi la fekk naa ko fa juróom-ñetti fekkaay bu ci ne damaa yenu ba diis mujj baawee fii maaw fi ba sëñ gaaw ñëw kër Mourad Ndaw ci ngaay mu ne ko sa sëriñ baa nga kel di leb café jënd ko bañ a muy tay la doomi jàmbur yi suñ gaawaan wut fukki ponkal ak ñaar ponkal mu nekk yenu fukki sa fukki fukki kilo yi ak ñaar wut fukki ponkal ak ñaar ponkal mu nekk yenu fukki peñ ak ñaar wut fukki ponkal ak ñaar ponkal mu ne fukki yenu fukki ponkal mu gaal gaal gu ne fukki kaas ñaar fukki ponkal ak ñaar ponkal mu nekk yenu fukki kilo yi warga ak ñaar fukki kaas ak fukki ponkal ak ñaar ponkal mu nekk yoonu fukki kiloy yi kafe ak ñaar ponkal mu nekk fukki yoonu kilo yi jar ak ñaar fukki kilo yi xorompole ak ñaar ak fukki ak ñaar fukki babor ak juróom-ñett daal ne ndaw yi fu suñ taa yendoo te na ngeen riim di xiim boobu këyiti maroog yi ñuy jaay di ko desee di ko indi muraat ndaw a koy indi ngaay di ko jaay doom soxna yi ñii liibar lañuy ñuy jënd genn waa liibar ab gel kilo ku ci bare sëñ gaawaan moo ci jënd cinquante kilo wala bërigo ak ñaar fukki kilo yër ko sëñ Tuubaa bàyyiru cul ne ne kere bi sëñ Tuubaa génnee daa jàpp ci mu loxom sëñ Mortala téye waaw sëñ Mortala Fall ni ko Mortala mu ne ko Mbàkke mu ne ko Mortala mu ne ko Mbàkke mu ne fii ma dugg yow ba génn fi ku la teg bët ko teg bët ku teg bët mbaa kok mbaa doom mbaa sa sët taalibe mbaa kuñ la tudde mbaa koo xaritool mbaa koo am saw tur dugal naa ko àjjana sëñ Mor Talla Fall moom la tudde sëñ Talla mi sëñ sëñ Asan woo sëñ Asan bàyyi sëñ bi ne ko ah man kat alom laa saa nëpp laa indaale dina Sadio yàgg na ci jaar waaw ji jii mosul ëpp na ku sant ku mu doon ëpp na ku yàlla bind kenn mosuma dimbalee Mor sax kaala gi sa bopp bi muy piis juróom-ñaari asamaan lañ ma ko kaala tabal ma ci jooru kajoor ak bawal taxul mu làqat ci ku yàlla bind féete te badar maa jekkali badar maa jekkali badar maa isaaxa maa ismaila man la yonti yàlla ibrahima doon dendi waxtu woo saa yu jotee ma wannen ñu naan damaa nii ah man a sërif kere la col colom moom mu col te sëñ ci bii loxo euh, euh, ngaay jàpp ci bii loxo waaw ñetti juróom-benni mbubb ak seen i grand mu jóg sol mbaxana mi sol weer yi tërëf ni Sidi Ibrahima aka bari doole gaa yi defan day daanu suñ suñ suñ mu doom te këf bii loxo sàmm ngaay këf bii loxo mooy porte la bu jekk la bu rafet boo xam ne nii suñu san dul kenn baatin baag xorom saak tabarkal tabarkal Baye Adama Sarr santaan nañu bu baax waaye am na leen lu ñu bëgg nga leeral ñu ko ndax dañoo dégg ni Baye Modou Samanaar xam-xam bi ko suñu borom defaloon daan wax naan fii woo màkka maa sut maa raw te mosuñoo jàng dégg fenn ni kenn mosu na ko jàngal loolu ñu bëgg nga leeral ñu ko ak lu waral lool man ñëpp toxale xam-xam fa laa ko toxale dana fi ñëpp toxale xam-xam falaa ko toxale ma ne ko fu ñëpp toxale xam-xam mu ne ma lawal maxfoos ak lawal ma ko noonu daal di ma lawal maxfoos nag góor dëgg fay yegg lawal ma ko ku yàlla yëkkati jóbbu la foofa moo fa mën a yegg ku doomi sëñ Tuubaa doo Seex Rafaal mënoo gis foofu daal lu ma la loo dégg ma wax la ko lawal ma foos laa ko toxale wala ma toxale ku fu sëñ Tuubaa toxale ci lawal ma foos ak bi leen Cheikh Fall yëpp ci wooye moom yëpp ci woon sàmm am néew aw mu demal jullee ka ko jëkk a jullee daa gàgg mu woo ko ne ko da ngaa gàgg mu waa damaa gàgg mu ne yëpp ci demal jullee ko sëñ yëpp ci ko gagut mu ñëw mun ko waaji bi mu gagee xel mi daa nekk ci diggante lawal ma foosu lawal ma ko moo tax xamatul ni néew la tiim daa ne ko lu nu toxal ma foosu lan ko toxale daa ne ko lu may def di ko dindi maa ngi see bi yàlla denc kun fa ya fa laay dem tànn fa lu ma soob def ko yàlla ba ko ci Ibra Cuun wàll naa la saa jikko ju kere Cheikh da ko woo ba mu ñëw mu taf ko ci dënn bi da koo taf ci dënn bi ah waaw koo taf ci dënn bi kam baraadaak teg ba ba ñàkk jaar seen diggante ñoom ñaar rogalaat a Fall ne ko Ibra Cuun mu ne Fall mu ne ah, saa rakk nga ci bëtin ci yàlla maay sa mag ci daal Ibra Cuun wàll naa la saa jàngoro ji leen rek laa la wàllut sama dënn bii nga xay góor attanu ko waaye bu dul woon doom damay sumb ko ci sa kaw waaye ku la xam-xam ma ku xam saa doom ku xam sa doom xam sa doom daane alluwa yëpp dajaloon nañu la am solo yënke wala naa la ko tey muy xam-xam bu jaru ci dëndu doomu aadama jaru ci làmmeñ day bàyyi ko dun ci directement kun fa yàkku na loolu ma foosu loolu ma ko noonu keroon ma bàyyi ba coo ma xam naa du si géej yi ñaata pang lay daanu par bis xam naa woon tur yàlla ku yëkkati xam naa litres yi ñaata litres la dong yi xam naa ñaata la xam naa ñaata kilomètre la ci suuf xam naa fi géej yëpp gëndaloo muy Sàngamaar daane fépp suuf yi ma taxaw déggoo seen coow li man ko dara laa déggut xool picc mi sab sax déggu mun ma ñu ngi waj waji ma ne ko xawma lu ñuy waj waji de déggoo picc yi li ñu wax ma ne ko xawma ko ngonk mbaam ngaax mu ne ma déggoo li mbaam mi wax ma ne ko dara laa xamul mu ne mbaam mi diw ak diw lay bi tag bi bi baraada bi laata tegg ma di ko attaal mu bay Mourou Meysa tàggu nañ ñaar ñooñu daani ma Mourou Meysa mi danoon man muugar man ko luy man muugar muy tiitaru day tiitaru man ko lu tax mu ma day bind lu mu bind ma am xalima lu mu yut ma am waaw waaw Cheikh Rafal ni ko baal bind sa mbind sa xalima xajutul ci aajo hmm. mu dër bopp man muugar ñu weexal ko fanweeri junni ñett rek mu peeg raay peeg raay daari wuti xalima ak daam sot ba mu ne teg xale gi baa la bëgg bisimilah bëgg na bind baaba doo nga la bind baaraamu day bi dem ba bay mu doon sàbba ni mu faatu amul baaraamu day da doon man moo gar di peeg raay di waaw am déggoo ma waaw waaw toog nañu ba yàgg mun na dem ci sëg yi ci Thiès kër maama laaj mhm. ñu dox ba yàgg mu pëkk pëkkal kenn mhm. ni ko yow sa yuuxi daa métti lool biig mu ne ko waaw damay jigéen di sëy ak saa jëkkër mu tere woon maw xew ma dem ñëwuma heure heure ba ma waxan jotut wopp dale ma fa ma xëtt ndigal ba ma faatoo ba léegi dem ma àjjana te àjjana yaa ngi ma jàkkaarloo ngir loolu bàyyi rek bopp mbopp yow ku la ko def la woon koy def doo ko def yow ku la ko def la woon doo def da xam nga li tax xam nga li tax araf yi jëkk sa xol bee tax yooyu araf bu jëkk maanaam boo dee boo kaangut it miin di firi di jàngale di xamle ku ne daa kaay dem ci armeel am déggoo ma saa nga fa boob tak teg ko ci armel ca bopp ba kos armel teg ci yow ku la ko def loolu doo ko def de danga nga naa lii ku ko def yàlla yóbbul sa war a loolu ngay def fii ne faat wax képp ku toog yow def ko léegi nga am ci sikki sàkk te sama moom su yoonam ne wut ci yooyu moom am déet bàyyi bi cun daa boobu loomal def ma ne boobal ma boob ñu teg ci bopp bopp soxna si mu kos almet ji teg ci mu bopp mu mu ba giim defu doom mu réetale ni ko yow nangam naa sa ndey yóbbu laa jëne yow sa yoon yoon jëkkër niw ci loolu ku la ko def loolu doo def de man buñ ma pétim la woon yi ma pétim ko léegi <laughs> xam di góoma <laughs> buñ ma doon demal ci sëgi lakk daay gi ma lakk daay gi léegi fii maanaam dañoo dégg ni Touba bu mu sanan toog ci wenn yi jàkkaarook armée yi daan naa mu daan fa dégg mu daan fa gis loolu lu mu daan demee mu ni Moussa na toogee ci wén yi nga xam te ne moo ne ci kalam Touba ci kalam ba jàkkaaroo ak armée yi dégg naa ne am na lu mu daan gis ak foofu mu daan dégg foofu xeet ma waaw bu ci wén yi wén yi daf maa wax ne ma wén yii daan ne ma àdduna yéenti wén ci ne wala juróomi wén ak juróomi bépp man ko bàyyi rek woon benn bépp bi fu mu ne mu ne ma Madinatul Munawwara ak bépp màkkatal mu karama bee ba fa jëkk ak wén ma ne ko waaw mu ma Saalum bee ba fa jëkk ak bépp ak ak wén gébb faal bébu Cheikh Rafaal ga nu ne ku ci wéeru raw say morom ak wén la woon moo fa neen ñoo fa neen bébu sëñ Bàmba gii ci jumaay ji ak bébu fi neen ak wén yii ci kanam wén googu ci la wén yooyu ci kanam te ñu def ko bisub jullikaay bi éet bi ci la sëñ bi daa jullee éet kere bi suñ taa wàccee ab liggéey ñu indi ko foofu ci kaw ndax Cheikh Rafal doon suñ bàmba ca tudd woo man ci xur wi bàyyi bi ci nee biñ bi ñu ko indee foofu wén googu bañ fa taxawee di fondation jumaa ji maam Cheikh moo jàpp ci ginnaaw nii suñ ko sërxalee fi wén yi neen Madinatul Munawwara ak Kaaba ga seen sooro ba day day day day day suti sooro tubaab bi soixante soixante centimètres waaye su ñëwee ci kaw tund wi day niwoote ni nii loxo ñu ne ko ah, Makka ma Madina ak Touba sore na mu ne adob ah, say bët daa meeb maa ngi defe ne su ma nii nii jàpp ñu dégg wey ni muy tracé ci Kaaba gi moom Cheikh Rafal bàyyi bi suur ne ne maa ngi sukk daal ni suñ fii ci bépp gi ci kanamu jubaa ji su ma fi sukkee ku ñu suul ci ci sëgi Touba yi ak feneen bu sa càngaay boree xam naa ko boo nee ci jàmm xam naa ko boo niwut ci jàmm xam naa ko mën naa laa wallu bu ma jamee ndigal bàyyi bi cuun sama naa bu tërëdi bi jekkee wala nga mooy xam la xam naa ko mën naa koo jooyanti sàngaat sam càng te ma toog du ma fi jóg bàyyi la coon daani ku ñu war a faatu suba bu ñëwee fi ma suma joxe loxo moo yël aw fanam jigéen su ambee góor ma soppi ko jigéen su ambee jigéen ma soppi ko muy góor su fan na rek gàtt ma yël ko ku ma tudd doo gàtt fan doo ñàkk wërsëg doo ñàkkum xel doo naag doo def doo dem sawara doo yàqu bàyyi la coon am déet góor ñi daal la nga wax fañ bi moom salaamaaleykum wa rahmatullah. Baye dama sant nañu bu baax a baax xam naa ne lii moom mënut woon na ñàkk ci ñu xam ko si Moussa Manar ndaxte doon loo xam te ne jamono da koo soxla lool waaw waaye nag bu ñu sañoon nga ndigal ñu tuuti rek maanaam ci digganteem ak Sëñ Tuubaa Baye bi moom Baye bi Moussa Manar ak njabootam. Hmm. boo wutee waxee Cheikh Rafal ak ak su Baye Ibra wax nga diggam ak sëñ bi hmm. fii ne mu ne suñu waxtaanee Sëñ Tuubaa te tuddoo Cheikh Rafal te boo waxee saanee Cheikh Rafal tudd nga sëñ Tuubaa ndax la ca moom sëñ Tuubaa ko ca def dégg nga bàyyi na coon tudd nga Cheikh Rafal tudd sëñ Tuubaa ñoo ko séq ñoo ko séq xam-xam boobu sëñ Tuubaa woo na ko ba mu ñëw mun ko damaa dégg ñu ne am nga xam-xam la du nii la xaw ma du noonu ilmu ilmu ni nga ko waxee noonu la du nii la du nii mun ko dégg naa am nga xam ko boobu mun ko mbàkke doo dégg dara loolu loo gis xam nga ca dara seet ma suñ taal ne ko demal taxaw fee mu taxaw juróom-ñaari juróom-ñaari mètre suñ tubaab ko jàkk baag mu mu delloo la kaala gi ni ko demal ni ko mën na sëkk. loolu mënut a ñàkk. waaw <laughs> waaye na ci boole i taqwala na ragal yàlla. yow da ci woon mu ne faal mu ne ko na ragal yàlla. Mhm. daal ni ko dëkk bii ma lay tegtal nag ma ma ko sànceeg léegi fekkuma fa kenn kenn fekkuma fa. Mhm. xudda nag leen mu taxina. Mhm. waaye ñaar-ñaareel ni mbëtt rek. ku boole daw ak fëgg ak jooy ak yuuxu di nga yegg fa nga jëm baa nga dee ci yoon wi te boo dee wàcc. suñ sëñ Tuubaa ko bàyyiru cun tabaarkàlla ah kon baax na sant bu baax Baye mu Sarr ci leeral yi mu doon leeral xam naa ne moom lii moom mëntu woon a ñàkk kon ñu ngi sant bu baax Baye Rama Sarr di eh, nuyuwaat baax suñu bàyyi suñu sëriñ di xalifa sëñ Moussa Manaat sëñ Mortala Cun di sant bu baax gaa yu baax yi nga xam te ne teewaloon waxtaan wi bu defee rek ñu naan kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf